daal wax ni ki démb ñoom nee nañu mille milliards yi nga xam ne moom lañ jagleeloon coronavirus bi ñoom daal bi ñu ko xoolee daal maanaam lu toll si juróom benn milliard rek la ñu njortu ne maanaam am na ay manquement am na ay njuumte te loolee mën nañu ko yóbbu fa mbaxana doone benn yéen kaay gi de la quotidien gouvernement bu Sénégal ñoom nag daat nañuy indi seeni leeral ci lu jëm ci li nga xam ne mooy rapport Cour des comptes bi mu def ci lu jëm ci xaalisu coronavirus nag jëru ko maanaam askanu Sénégal gi yëpp gis nañ xam nañu li nekk ci rapport Cour des comptes jamono ji li askan wi soxla nag mooy jël mbir mi ñu yóbbu ko fa mbaxana doone benn waaye nag nekk fi di expliquer loolee jëru ko te nag du loole la askanu Sénégal soxla maanaam mbir mi si boppam moo jërul ay guddal jël ak i explication loolee kàddu Ibrahima Seck la yéene kaay gi ñu xëy fekk fa docteur Abdoulaye Bousso mi nga xam ne fasoon na lool ci jamonoy coronavirus bi ba pare nag di daal di sàkku ñu topp ñi nga xam ne tudd nañ leen si loolee mooy kàddu yi docteur Abdoulaye Bousso nee na mbooleem ñi nga xamante ne tudd nañ leen rek ci rapport bii nga xam ne Cour des comptes moo ko génne ci xaalis bi ñu jagle leen coronavirus maanaam nañu leen topp ndax nag am na loo xam ne maanaam warut a am li am ci yéen gi di source mooy rapport Cour des nga xam ne ñoom nag daat nañuy sàkku ñu topp lu toll ci fukk ak ñaar ci nit mën la Cour des comptes ñoom ginnaaw bi ñu defee seen rapport bi daala gis nañ ne am na fukk ak ñaar yoo xam ne mënuñu leen a ñàkk topp yéen kaay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu rapport bi nga xam ne Cour des comptes génn na ko ci xaalis bi nga xam ne moom la ñu jagleeloon coronavirus li si xew doy na waar génn xeetu doy waar goo xam ne maara day taale ñi nga xam ne ñooy waa ministère microfinance ñooñee nag dañu leen a jàpp loxo ci poos loxo ci poos lañu leen jàpp ndax nag ñi nga xam ne ñooy waa ministère microfinance ñoom ci coronavirus bi dañoo jëloon ab liste groupement femme ne nag dañu leen di jàppale maanaam dañu leen di jox ay subvention waaye nag liste boobee ñi nga xam ne ñooy waa Cour bi ñu ñëwee dañ leen a jox liste bi di woote ay groupement femme na leen yéen moom est-ce que ministère microfinance jox nañ leen ci subvention yi groupement femme yooyee nag daal di koy weddi ñoom nee na ñu jotuñu dara te nag ministère microfinance liste bi nga xam ne nee na jox na leen ay subvention groupement femme yooyee ñoo ngo sa te groupement femme yooyee bi ñu leen woowee ñoom nee na ñu jotuñu dara waaye li ci gën a doy waar tamit waa ministère microfinance ñoom am nañu ay dépense yoo xam ne def nañu ko ci xaalisu coronavirus bi te nag ay dépense yoo xam ne activité yooyee yoonu coronavirus nekku course yéen kaay gi de Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu benn bokk yaakaar ñoom nag doon nañu amal séminaire waaye nag nee ñoom ñoo gi waajal bu baax a baax 2024 maanaam jàjju di amal ay mobilisation ba pare di déglu Macky Sall yéen kaay gi di Source A nee na Idrissa benn bokk yaakaar ba Idrissa Seck ñëwutoona yéen kaay gi de La Tribune xëy duñu xibaar naan ñu candidature Macky Sall benn bokk yaakaar ba léegi ñoo ngi layaam layaami yéen kaay gi di 24 heures ak bés bi nee na coalition Yewwi

coronavirus waaye tamit concert de casserole bi nee li ko waral bokk na ci contrat quarante cinq milliards yi nga xam ne moom la gouvernement bu Sénégal wax ne moom la ñu jëndee ay arme te mbir mi lëndëm loola waaye tamit ñoom coalition Yewwi Askan Wi nee nañu dinañu amal ay manifestation maanaam partout ci biir réew mi ajjuma fanweeri fan ci weeru décembre Yewwi fan ci weeru janvier 2023 coalition Askan Wi nee nañu dinañu amal rassemblement ci biir réew mi yëpp waaye ak ci biir diaspora bi ngir ngir nag ñaawlu bu baax a baax scandale yi nga xam ne moo am ci réew mi yéen a kaay la turbine ñu xëy fekk fa Mouhamadou Lamine Massalé nee na nag coalition Yewwi Askan Wi ay sac lañ yu yuuxu ay sàcc ndax moom Mouhamadou Lamine Massalé nee na Khalifa Ababacar Sall maanaam bu kenn waxul moom wurta wax ndax nag fii lañ ko toppee nag détournement ci lu jëm ci caisse d'avance mairie bu Dakar te nag Khalifa Sall moomee nag yoon sax daal di nag rëqandikam tey jii Khalifa Ababacar Sall wurta jéem a wax sax ci rapport Cour des comptes yi waxi Mouhamadou Lamine Massalé la nee na yeewu askan wi maanaam indi coalition de voleurs qui crie au voleur nee na Ousmane mii nga xam ne dañu ko tuumaal jëm ci wàllum la ba léegi mbir mi leeragul la mu nekk fi di wax ci lu jëm ci wàllum rapport Cour des comptes ak di tuumaal Mamour Diallo 94 milliards moom Mouhamadou Lamine Massaly nee na ki nga xam ne tamit mooy Habib Sy moom tim yóbbu woon nañ ko fa mbaxana doonee benn ku tudd Alioune Badara Thiane moo ko yóbbu woon fa mbaxana doonee benn Sénégal mag doon wax toog leen seen kër jamono jooje ñoom ñoo ngi doon amal ay luubal ci alalu askan wi yéen i kaay gi de Les Échos nee na Mamour mi nga xam ne avocat yi Ousmane Sonko dañoo sàkk woon doyen des juges di koy woo déglu ko Mamour Diallo daat nañu koy déglu ci lu jëm ci mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko waaye nag moom Mamour Diallo nee na nag dañu koo tuumaal jamono ji lu jëm ci wàllum complot la ko Ousmane Sonko di accusé te nag dossier bi dossier viol la ak menace de mort Mamour Diallo nee na bis bu ñu ubbee nag ab enquête dossier ci lu jëm ci wàllum complot bu buñ ma woowee dina expliquer te man man Mamour Diallo musuma teg samay tànk fi nga xam ne mooy Sweet Beauté te Sweet Beauté googee tamit maanaam wanu ma ko Ousmane Sonko ba pare tamit yóbbu ma fa Ousmane Sonko aji Sarr nag ginnaaw bi mu porté plainte laa ko xama te nag damaa gis mu nekk jigéen boo xam ne dafa nekk si jafe-jafe moo tax ma koy dimbale yéen kaay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu ñaareelu audio enregistrement MC Niass Adji Sarr génn na ma ne la audio boo xamante ni maara détaillé ñu tudd si ay personnalité yu mag ci réew mi mooy wax waaye nag Adji Sarr ci boppam audio yii moom nangu na ne moom la ci kanam doyen de juge Maham Diallo yéen kay gi délibération nee na nag Sénégal yi am nañu mberteel ci yenn tur yi ne Mohamed Khalifa Niass mi ngi si tudd Bougane Gueye Dany moom nag nee nañu ba muy tuule maanaam nag dina daal di porte plainte yéen kay gi de sunu lamb xëy di ñu xibaar naan ñu face to am na diggante Gris Bordeaux ak Ama Baldé Ama Baldé doon tàngal Gris doo doon seral Ama Baldé nee na adversaire yi mu mos a am yépp ci lamb ji maanaam Gris moo ci gën a nekk ak nooy neex